donc man maay docteur Bérouba Guissé le mandataire du président El Hadj Malick Gakou coalition Gakou 2024 ñu ngi sant yàlla gannaaw bi ñu duggee fii ba génn euh, nekkoon ci cinquante troisième position di bu xaw a sori donc tey mën nañu wax ne validé nañ région yëpp yi nga xam ne mooy neuf régions sur les douze yu ñu déposé woon am loo xam ne war nañ koo complété loo xam ne mi ngi tourné autour de trois mille quatre cent parrains yoo xam ne war nañ ko mottali euh, pour am le minimum alors euh, li ñu validé nag toll na ci quarante mille sept cent et quelques parrains aujourd'hui ni ngi sant yàlla doublon yi mi ngi toll ci euh, dix-huit mille doublon dix mille externe amuñu doublon interne on a zéro doublon interne alors donc euh, on a dix huit mille yoo xam ne buñ ko joxee trois mille rek lañ ciy jël mu mat donc dañuy joxe dix mille pour am trois mille alors donc loolu mooy situation bi donc ñi ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo liggéey ci parrainage bi ci kaw ak ci suuf ci biti Euh, di sant yàlla ba ñu amee résultat bu mel nii ci position bi ñu am. en français alors je suis le docteur Bérouba Guissé je suis le mandataire du président El Hadj Malick Gakou alors euh, nous rendons grâce à Dieu d'être sorti euh, serein de cette étape de parrainage où nous avons pu euh, valider 40 700 parrains. Vu la position de 53e, je pense que c'est un exploit. Maintenant, il nous reste à compléter euh, et quelques, 3400 et quelques parrains sur les 18 000 doublons externes que nous avons. Nous avons zéro doublon interne. Donc, euh, nous avons bien travaillé et nous remercions l'ensemble des responsables, des militants qui ont travaillé depuis plus de euh, six mois sur ce parrainage et nous, les, nous leur donnons rendez-vous, Inch'Allah, pour compléter les merci beaucoup. jërëjëf mu nekk docteur Bérago Guissé. mu euh, euh, euh, ko Malick Gakou renvoyé au deuxième tour et nekk na loo xam ne tamit daanaka dinañ ko gis lu bëree bëri ndaxte daanaka candidat yi nga xam ne ñoo njëkk a passé ñoom ñooy am plus de chance ci li nga xam ne moom la jëm.

waaw mu nekkoon li nga xam ne moom mooy le mandataire de Malick Gakou kon euh, lu ñu mën a jàpp rek mooy que ki nga xam ne mooy Malick gàkku day daal di euh, passé euh, si nga xam ne moom mooy au niveau di deuxième tour donc mali Gakou day dem li nga xam ne moom mooy deuxième tour ginnaaw ba. Habib Sy daal di euh, moom daal di valider lu mel donc Malick Gakou si ay euh, mu war na régulariser lu toll si 3451 euh, à régulariser si wàllu parrain. mu am lu toll si dix-huit mille euh, doublons donc mu daal di valider également euh, quarante mille sept cent quatre-vingt-deux euh, ci wàllu parrain donc loolu la Malick Gakou daal di daal di valider donc le candidat Malick Gakou dem na à pour war daal di régulariser li nga xam ne moom mooy yenn parrain yi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko daal di wax ne daal dina koy am mu toll. Euh, si li nga xam ne moom mooy euh, euh, mille 3451 la war daal di régulariser moom am 18 doublon moom Malick Gakou daal di valider li nga toll si 40 782 daanaka lu ko dese bëriwul 3451 su ko régulariser rek day daal di jàll si li nga xam ne moom moo ñeel wàllu parrainage yi fii nga xam ne moom mooy au niveau de la commission de contrôle et de vérification des des dem mbokk yi di leen euh, nuyuwaat di leen ziar si ngoon bi euh, di leen wax que euh, boobu ba léegi ñu ngi càmbar yeneen dossiers yi nga xam ne si ngoon gi euh, la ñu war a xoolal ni li nga xam ne moom mooy euh, seeni i parrainage euh, ñëpp xam nañ ne li nga xam ne moom mooy depuis samedi 30 décembre 2023 tey bu di pook li nga xam ne moom mooy mercredi 3 janvier 2024 si at bu bees conseil constitutionnel ak communication commission de contrôle li nga xam ne moom mooy contrôler wàllu parrainage ak vérification li ni mel euh, boobu ba léegi mu ngi amal li nga xam ne moom mooy la vérification des parrains si yenn candidature yi nga xam ne jotoon nañ ko déposé si fàttaliku euh, déposé woon nañ toll si 93 candidature euh, boobu ba tey am na également des candidatures yi nga xam ne dañ ko daal di neenal maanaam dañ ko daal di invalider am également ñi nga xam ne Euh, jàll nañ euh, d'office par rapport ak li ñeel euh, vérification des parrainages laata ñuy xaarandi liste bi nga xam ne moom la commission de contrôle war a génn le 12 janvier bii di ñëw pour wax kan ak kan moo jàll ci vérification des parrainages bi ñu mel également am na ñeneen tamit ñi nga xam ne. ñoom dañ dañ deuxième tour maanaam admis wuñu d'office par rapport ak seen candidature yi mu am ay doublons yoo xam ne dañ ko war daal di euh, yokk si li nga xam ne moom mooy moom mooy mbir yi donc donc également li nga xam ne moom mooy euh, doublon externe également posé na des des des questions ak ak ñi nga xam ne euh, kanam waaw antenne bi xam naa si kanam incha allah rabi tuuti rek ñu daal di koy euh, ibi mais di wax rek euh, suba si ba léegi am na yenn dossiers yu ñu euh, jot a càmbar tey nag ngoon gi ñu ngi xaarandi ki nga xam ne moom mooy ñoom Thion ñoom ñu ni mel Habib si également. si fàttaliku jot naa jàll fi nga xam ne euh, moom mooy si parrainage yi daal di admis d'office moom Habib si ginnaaw euh, ba mandataire am ñu xamal ne ki nga xam ne moom mooy euh, député Pastef yi nga xam ne amoon nañ lu toll si vingt 26 député ñoom ñoo ko jox benn 13 députés yi ñu bu dem jàll si li nga xam ne mooy parrainage parlementaire l'équation c'est quoi moom mandataire bi Habib Sy di dem bay xam ne ne en cas. de validation de la candidature d'Ousmane Sonko moom euh, mandataire Habib Sy di xam ne ne que moom euh, leader am di Habib Sy day daal di renoncer li nga xam ne mooy sa sa candidature également Malick Gakou dégg ngeen aussi son son ñu ñëwaat na euh, par rapport ak. Euh, euh, doublon yi nga xam ne euh, war na ko régulariser di toll ci 3000 et quelques mu am 40 000 et quelques parrain yi nga xam ne moom moom Malick Gakou validé na ko donc ku ñuy xaar nag bokk na si également si ngoon gi ba tey dippoog mercredi 3 janvier 2024 pap papa Momar Ngom donc moom tamit